vous, élèves. Vous avez sans doute que l'école sénégalaise est frappée par une crise dont chacun d'entre nous ignore. Complément sa fin. Je vous rappelle que c'est une guerre entre le gouvernement et nos veillants professeurs. Et chacun d'entre eux a déjà bâti son avenir en espérant d'autres opportunités. Cela veut dire aucune des deux camps ni gagnant ni perdant. En conséquence, les perdants, ce sont nous, nous, les élèves. Le gouvernement est en train d'hypothéquer notre avenir et ça, que nous développerons. Notre marche aujourd'hui repose sur deux axes. La première, nous faisons cette marche pour un avenir meilleur des élèves et que notre avenir ne soit jamais hypothéqué. ñun ñun ñun ñii ñoo mën a sauver année bi ndax ñoo ko mën a sauver buñ jàpp ne rek grève bi am na dañoo war a def année balance ñun ah. ñoo war a jàng deuxième waaye ñu faisons cette marche pour apporter notre soutien au professeur afin qu'il puisse être respecté par le ak nu mun ta mën a demee prof yi mënoon nañ jàpp xam nañ ñun ñoo nekk ay sacrifice ëllëg ndax suñu avenir lañ bëgg a yàq croisés en attendant simples spectateurs. Nous toog ah, nous vous invitons à faire une marche dans les règles de l'art qui n'est rien qu'incarner la discipline. def nañ ko si jàmm ak salaam. te defuñu ko ngir dañoo bañ a jàng mais dañ kaa def pour sauver suñu avenir. <laughs> li ñu waxaat mooy. ñun ñooy élèves yi ñun ñooy doon sacrifice ëllëg ñoo war a def examen. ñoo war a si bàyyi. ngir yàlla buñ leen bàyyi kaye ginnaaw. bilaay yow buñ leen bàyyi kaye ginnaaw. grève bi am na mais nañ sauver suñu bopp année ñu ko sauver kenn du ñoo ngi naan niveau élève dafa baax niveau élève yi dafa baax élève jàngatuñ lii lii nii nag moo ko waral ndax buñ toogee suñ niveau baax na waaw la mais buñ jàngut nan lay niveau bi mu jëmel di suuf si day yàqu day yàqu niveau bi day yàqu day ñoo ngi ñii war a examen gisuñu seen professeur classe intermédiaire yëpp kenn jàng si daf ñu cours normal da ngay war a wàcc 3 dugg 9 heures wàcc 10 heures loolu du bi mu toll nii premier novembre moom la ñu yore te joxuñu feuille. waaw man maa leen lancé bu dee état bi ngeen jàpp si ndax ñun bëgg nañoo jàng dañoo gis ñu ñu jàngal. ah. huit heures neuf heures nañ leen huit heures neuf heures loolu yooyu yëpp léegi nag arrêté da nga jàpp si li prof li lay laaj nga jox leen ko ndax ñu mën a jàng ndax ñun ñii ñooy sacri ñun ñooy loolu sacrifice ëllëg bëgg nañoo jàng mais gis ñu ñu jàngal ñaan ngeen jàppal si élève bëgg nañoo jàng dañoo gis ñu ñu jàngal bëgg nañoo jàng dañoo gis ñu leen jàngal état ñoo ngi def marché bii def ñu ko pas ba pare te croiser seen i bras te jànguñu dañoo war a jàng. waaw dañoo war a jàng 12 heures la ndax marche pacifique lañu wax. waaw bu ëllëgee nag bu amee leneen lu xew si bi ñu def ko 72 heures incha waaw waaw. waaw loolu laa moom si li ma leen wax di daa leen remercier nag si bi ngeen taxaw nag rafet na trop.